jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñuy seetaan ci wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàcc wàccuwaay tey nag ñoo ngi fii ci arène nationale ki nga xamante ni suñ papa sëñ Modou Niang moo ñu fi woo Cheikh Super Diamono capitaine Dina mbokk yi boo xoolee stade bi nga xamante ne gars dañoo namoon làmb ndax boo xoolee làmb ji tey dafa alaa daw me supporter yaa ngi fi ñi di amateur yaa ngi fi waaye mbokk yi tey làmb ju neex moo naa am fii ndax kii di Cheikh Super Diamono waroon na fee bëri waaye combat bi jotul yegg capitaine dinaa nag gars yi mbokk yi gën nañ koo gis ba tax na damay ànd ak sama cameraman ki nga xamante ni ni mooy sëñ Bas ñu ànd ak moom dem xoolu ñaari mbër yi te dellu si waat leen lépp li fi am ci wasaare làmb connecté wu leen jaajëf sama gars yi sëñ Bas ñu dem Kisno moja Malick Niang Caatu Yoff Boy Diop ñëpp ci biir capitaine Dina a ngi noonu ànd ak eh, <laughs> ko waaw li lan la ana daaneel ba jàng waaw fecc balaa neex am daaneel <laughs> xale yaa ngoog waa li tànn béer la wala sabar la wala lu mu doon jagin damal daaneel balaa xaa jàng waaw fecc daal balaa neex am daaneel capitaine dina ngoog capitaine dina

waa lay ziar wér a wér a wér. sant yàlla wér. mais tey naka nga naka nga bés. waaw sant yàlla bu baax a baax. julli bi sant sama ñaari waajur. di sant ñi ma teewal. tey eh, géejawaay géejawaay bépp génn kon tey dama war a jël sama temps. am ndam nu gën a gaawee si kàttanu yàlla. mais ñu gis la nga préparé woon combat daaw ba combat di waaj a ñëw combat bi yàqu. Euh, gars yi ñëw ba ci stade bi combat bi yàqu ren nga war a ñëw war a jëflante tey bés lu mu laaj. waaw mooy li ma la wax conscience tranquille tey bu arbitre sifflé ma def li ma liggéey arbitre may ma ndam yàlla may ma ndam ci kàttanu yàlla. lan ngay wax adversaire. waaw moom suñu grand la kon li ma la doon wax rek suñu grand la dañ koy jox cër jox ko respect mais bu arbitre sifflé. garant amatu fa. mais cër bi respect bi bu ëppee est-ce dina dina dina kii. moom laa la moo tax ma ne dañ koy jox cër jox ko respect duñ ko xeeb mais bu at sifflé dañ koy wax ne ñun xale lañ dañoo liggéey dañoo nekk si yoon. am lu ne sa kanam. bu baax bëriwu ma pour combat bi déedéet waaw. moral bi fu mu toll fu mu toll. lépp jàmm. Ah, baax na ma bàyyi la ba ci kana am ragal. mbër nuyu naa. fay fay naa la gaay. loo maa ngi nii rek bàyyi. Euh, tey dafa mel ni yaa bëri grand combat. yaa waaw. mais tey naka nga waajee bés. waaw ñu ngi koy waaj rek ànd ak samay mbokk yëpp gaa yëpp samay boy gaa yëpp ñoom Modja ak ñoom Malick Niang ñëpp tam waa Yoff yëpp waaw ñu ngi préparé combat bi daal instant yi daanaka moom li si waaw ñu def jafal gan gi bagaas dem ñibbi incha allah. mais est ce que loolu dina kii euh, daa waajoon na ba waaj bu rek combat bi yàqu ren mu war a ñëw war a desante ko waajal. waaw la am na doole xam nga gis naa leneen loo xam te ni daaw ma ko woon gis kon loolu dafa may motiver combat bi moom nu mu ko bëggee rek man bëgg naa ni ko raw quoi kon maanaam di ngeen gis lépp dama dégg mu ne mag nga day ñëw defaral la dem yoonam waaw moom bu defee loolu combat bi day gaaw si kattanu yàlla bu defee loolu combat bi day gaaw du yàgg sax mu gaaw waaw day gaaw sax moom bu defee loolu day gaaw waaye waxuma nag mu ñëw di corox corox quoi di jéem a xaw li muy def waaw pour génn si waaw waaw ñoo far aca mu ngi noonu bébé Modou Lo mi sumburu moo def rasta yi ko tend bu xonq bébé Modou Lo moo ñu woon ginnaaw arbitre baa seet arbitre baa ngi leen di seet ba xam ni na ñoom nii nuñu bébé Modou Lo mi sumburu bébé Modou Lo mi sumburu mi sumburu moo ñu woon ginnaaw bébé jàkkaar lool bébé Modou Lo arbitre yaa ngi leen di xool quatrième combat baa ngi noonu suñu Serigne Modou Niang fi ci arène nationale bu Sénégal Miss Mbourou bébé Modou Lo Miss Mbourou ngi fëggatu jël loxo yi fomp ci ginnaaw ngemb mu ngi bébé Modou Lo ngi taxaw rek jàkkaarloo ak moom arbitre baa ngi laaj gis laaj na ñaari mbër arbitre ba sifflé na combat ba Bébé Modou Lo Miss Mbourou Bébé Modou moo def tressé yi Miss Mbourou moom moo jàkkaarloog ñun jamono ji ñu toll moo yor ngeen bulu meuble yi Bébé Modou Lo moo ñu won gannaaw Bébé Modou Lo Miss ah, na taxawaat Missoumbirou Bébé Modou Lo ñu koy lewaatoo léegi nii rek Missoumbirou cokkaas taxawaat ñu ngi def déplacement latéral taxaw nañ Bébé Modou Lo Missoumbirou Bébé Modou mi Missoumbirou ah Bébé Modou Lo mbim ne Missoumbirou ñëw na dóor Bébé Modou Lo Missoumbirou Bébé Modou Lo Miisu Mburu koor gaa ngi ñëw Miisu Mburu moom dina dox koor gii di ñëw Miisu Mburu dina dox eh, eh Miisu Mburu ngay dóor eh Bébé Modou Lo jël loxo mu yëlëb ko am na ñaari loxo ca ngemb la Bébé Modou Lo a ah, bàyyi waan na benn loxo ba ca ba roofoo nañ ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo roofoo nañ ñoom ñaar jàppante ku nekk am na loxo ci ngemb Bébé Modou Lo mi sumburu Bébé Modou Lo mi ko takk na ko teq na ko mu bañ Bébé Modou Lo ko teq ko mi daal di bañ ay ca mu ngi noonu mi sumburu Bébé Modou Lo teq ko ee eh, Bébé Modou Lo daan na mi sumburu Bébé Modou daan na mi mu ngay daw Bébé Modou Lo mi sum daan na mi sunuru Zimba ak Nokia seen combat bi yàgg na lool waaye mitaan nañ ba ñëwaat Zimba ak Nokia ñu ko ca géew bay lewaatoo Zim Nokia dóor na Zimba dóor na léegi jàppante nañ ay loxo Nokia ak Zimba Nokia ak Zimba jàppante nañ ay loxo Nokia ak Zimba Zimba dóor Simba ak Nokia Nokia door na Simba eh, jël na tànk Nokia Simba jël na tànk Nokia ba jël na ko dugal na ñaari xaar tànk te a Nokia rëcc ànd na heure bu Zimba jëlee tànk Nokia rëcc Zimba ngay dóor Zimba ngay dóor Zimba ngay dóor ak Zimba ñu ngay bëre Zimba ngi dóor ci suuf Zimba ngi dóor ci suuf Zimba ak Nokia ku nekk teena sa ngembal morom Zimba ak Nokia ñaari xale yaa ngay bëre ñu nga ca suuf Simba ak Nokia ñu nga ca ñu ngay bëre Simba ak Nokia seen combat bi yàgg na metti na Simba ak Nokia Simba ak Nokia wannan kai da bakkan la Yeah!

Simba Nokia zongale na Simba eh Simba daan na Nokia Simba daan jël bu rëy Petit ak Siteu bu anti na ko bu anti daan na ko Siteu bu anti daan na Petit Baye Fall Siteu bu anti daan na Petit Baye Fall combat bu gaaw combat bu gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw a gaaw baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Cité Zee fils de Lagne Sané fils de mbokk yi moo ñu woon ginnaaw Cité Zee lañ jàkkaarloo waaye Cité Zee takkaay bari na fils de Lagne Sané ngi dox ci kawam Cité Zee boo génnee am avertissement Cité Zee abi sëfër na mu génn mu ayee ba génn def ay ñaanam demal mbër ndaw nga li enjeu la Siteu Zé Fils de Langsane am na benn avertissement moom Siteu Zé Fils de Langsane eh, xale seen combat gaaw daan na ko wala daanagu ko corne loos ba da ngay daan Fils de Langsane daan na bien fait vite fait la mu andi kàggu jëlal ma lii waaye baawoon loo fait bien fait la ko def doomu mbër la doomu mbër jàngil ñam lamba noonu mais lii rafetul saisi ñuy damm di ko sànni rafetul lii du image bu rafet Soutane Lansana nuyu naa la. seen mais nu mu demee nii affaire bi dafa gaaw vite fait bien fait la. waaw dafa war a gaaw sax. mais public bi la topp lan lañ la top waa Guédiawaye ma bëgg seen bopp te yàlla tax rek ma doon xale mu daw jur jur seen kanam ñu bëgg ma seen bopp te yàlla tax rek waaw. dañoo gis combat bi dafa gaaw ba pare booy bi li mu takku dafa bëri mais yow xooloo loolu lépp. non non man xooluma loolu lépp man li ma sama école entraîné laa indi rek waaw ñu nekk sama gànnaaw ñam Mar la ñam Pape Thiam ñam Gabar ñu mel ni sama gànnaaw ñam Boy Thiam Alaaji Lëri li mel ni doomu mbër nga de. ah man dafa mel ni doomu mbër nga. waaw doomu mbër aawam. doomu lu ñu wax jàngil ba yàgg yàgg def na la njam waaw. waaw yaa ngi koy bàyyi xel bu baax la yàlla def jàmm rek. xale sa bët ëllëg di si teg mbokk yi arbitre bi sifflé na deuxième combat spécial Bangok Paul fay nañ la delloo ziar bu wér Rambo ak Ngel Koki Ngel Koki jël na Rambo Ngel Koki jël na Rambo Ngel Koki duguba baaxul duguba baaxul Rambo kay mbot daan ko wala boog lu fa ah, Ngel Koki Rambo arbitre lu ñu wax Ngel Koki Rambo oh Rambo daan na ngel kooki dugub baaxul dugub ba raasoo yi da seen da koo ba muy daw di ñëw mu rasu sooxal ko jàpp bopp ba samb ci suuf Rambo ngel kooki xolo booy xolo booy taaw anta ñoom ñaar ñooy bëre taaw ak caat maanaam taaw caat ñu koy bëre boog taaw anta ak caatu limousine taaw anta caatu limousine ñu anta jàppante nañ ah ah bëggoon na koo kii mu bañ taaw limousine caatu limousine taaw anta ñoom ñaar ñu ko ca géew ba caatu limousine taaw anta ku nekk jàpp na Caatu Limousine taaw Anta caatu limousine xale yaa ngay jàppante waaye mbokk yi Senghor yaa ngay wadd taaw Anta caatu limousine nga koy fàq léegi kor na ko mbokk yi taaw Anta booy xool moo xaw a gën a diis tuuti kii di caatu limousine taaw anta caatu limousine taaw anta ngi jàpp ndengeñ am na benn loxo ci ngemb wala boog ñaar waaye sango yaa ngay dagg limousine a ngi yor loxo bi ci ngemb gi waaye dafa mel ni jàppul taaw anta jàpp na taaw anta wàcc na ba suuf jël ko lum mu ko bëgg a def jàpp na ci ginaaw ngemb la waaye limousine mbokk yi jàpp na taaw anta limousine Taw Anta Limousine Taw Anta Caatu Limousine Taw ak caat la Taw Anta ak Caatu Limousine ñoo ngi noonu taw anta nga koy dugg roof na ko ca xabal ba waaye dafa sori da koy daan taw anta roof na ko ca xabal ba eh, caatu limousine caatu limousine caatu limousine daaw na taw anta taaw caat la. mais namu naa nuyu nañ la. ay ñu ngi si koom di waajal rek. tey teewaay bi ko waral. muy Cheikh Super Jamono. xam nga rek ñoo waajandoo combat beeg yëpp yaa ma a xam pare lépp nag war a ñëw yàlla mooy ñu ndam waaw di wax ne nag damay métti lu benn affaire muy sunu combat bi presque at maa ngi waaj boobu ba aw ñu dat te dañ ma war a jox dat ma defaral maa leen njaaxi xooli leneen waaw maanaam Bou Siteu dafa war a bëree parce se sérieux fu ma romb sama suba gars yi naa ma mbër léegi nag boobu damay wax Pape saar ak ñoom Alain gars yi nekk si kaw dina wax ne nañ ma jox dat man ma war a tooyal ngemu li bëree sama yaram day xasan kon ba léegi amaguloo ba léegi amuñu ta ta yow seet sax moo ñu def émission boobu ba léegi imagine toi boobu ba léegi bëree gu ma ay wax ak man ma bëree yow xam nga ni bu ma jógee géej waaye ñëpp ay jóg loolu am na barke Serigne Touba am jàmm gën waa diaspora bi yaa ma gën a xaw yow jàmm naa la delloo ziar waay ci loo ne ñu nii rek lépp ni nga ko waaj comme ni ñu daan waajee rek te bii da say raw sax incha bu si kanamee gis li ma la ngal ngal kooki. ngal kooki. ngal kooki waaw. baax na bonne chance. incha allah. <laughs> mbër nuyu naa la. xam nuyu saa ba pare. mais ci loonee. waaw mais sant ak nekk nii rek. naa la am na lu ñu waxante woon de baay. waaw ah, loolu moom am <laughs> mais yaa sant bu baax ah, sant yàlla bu baax a baax. waaye. non non maintien état maintien état. état corona Covid 19 dem leen ngeen toog. mais corona bi jeex na fi mu toll nii. yaa ko jeexal. jeex na fi de. waaw wasaare ñu. làmb jaa ngi nii ku jeexal corona bi laaj yaa ko jeexal. ba ah bàyyi ñu bëree mais waaye corona bi jeexagul. waaw fan dama ko gis mu wàcc simple bi. dafa mel ni moo ngi lay waajal. waaw mu peut être moom loolu yàgg na def loolu mais man moom maa ngi ma war a nekk rek làmb moom xam nga ku ci nekk li nga yaakaar ngay def ñu ngi ci li yaakaar incha ma nuyu waa Diourbel yëpp waa Bawol yëpp maa leen di siyaar Diourbel surtout xam ne gars yi xam ñu ngi waaj ndogu yi bu baax a baax ndogu kër Sèye Ibra Fall waaj ko bu baax a baax. ñëw ngay wax waxi ndogu. ñun ay Baye Fall lañ dañuy dem toogi ndogu bu soobee yàlla incha allah ay Baye Fall lañ weeru koor bi Diourbel lañ koy passé ba waaw waaj na bu baax waaj na ñu koy ñaanal yàlla may ko ndam incha allah bu soobee yàlla bu soobee yàlla waaj na bu baax baax na ma bàyyi la nga teew concentré. waxoon naa la gisoon naa ci lamb ju njëkk ja lamb ju njëkk ja gisoon am na. <laughs> mbaytin a ngoog mbaytin gars yi. mais mbaytin looy xuxulaate ni di jéem a ñànga. mooy bandi. bandi nga. bandi laa. dafa mel ni yaa waa Pikine la. waaw maa waa Pikine la waaw. mais du gulet. taalibe Seex Maodo Gueye bi du gulet mu dugg Pikine. boo xoolee jar mooy gën a tuuti sax ñi ma bëreel Pikine. jar moo gën a tuuti ñi ma bëreel Pikine. mais man dama ko dégg mu ne xamoon na ni yow lay dajal. waaw ah, day pàccal rek bu xamoon man lay dajal du wari ku fi daan ay bàyyam cet li ay ñoom cere càq dëkk biir Pikine xamu ko woon. da nga am mbër moo xamante ni dafa coriace mbër moo xamante ni nii day ñëw tegal la lu métti xaw ma nag lan la fi na fekk fi mu toll nii te yow fi mu toll nii mbaytin mbaytin dafa mel ni dafa am loo amel waa géej waay. lu ma amel waa géej waay lu dul roi des arènes roi des arènes laa leen amee yàgg-yàgg buñ arbi ne prip buy est duñ ko séntu ji sax seen kii bund armée la lu tàng laa koy tagal leeral la Cheikh Modou ma maa yónni yàqamti ma. mais tey naka ngeen andee Cheikh Super Diamano. waaw waajal nañ ko comme ni ñuy waajalee suñu bopp sax bu ko rawul di ñaan yàlla mu suturaal ko ci barki Cheikh Modou Gueye daal la ko yàlla defal ndam barki yonent bi. baax na ci kanam. merci. de rien. gis mais ci loolu. sant naka waar. mais laa gis waaw maa ngi ñu ngi si waajtaay. waaw ñu gis sa waay sa adversaire dafa dem États-Unis dafa mel dafa dem yokki doole. waa waaw c'est normal <laughs> li mu am ku ko am wuti doole. li mu am ku ko am wuti doole. lan la am soxla ju rëy. lan la am. soxla su rëy. bi. moo jabu yof élément borom Ndiassane bi. <laughs> mais mais Thiat. Thiat bëreeg moom lan la laaj. moo bëreeg moom xam nga cat champion la. toujours comme ni ma ko doon waxee rek moo ma jiitu. bon xëy na làmba moo ñu boole dama koy sant suñu borom champion boo xam ne jox naa ko cër yëpp yu nga xam ne war naa kaa jox moo tax tey ji su may ak moom il fallait ma indi doole bu bari comme moom dem na uti doole nag daf may yokk a jom ma indi de plus ko moom parce que bon taille yi bokkul manche yi bokkul gabarit yi bokkul. lan mooy différence bi. maa ëpp taille normalement su ma entraîné lu war maa ko yëpp doole. yaa ngi ci bu baax sax man lamb rek mooy sama liggéey dama siy xëy di si gont. promoteur bi lu mu waxagum. prince le 11 juillet incha allah drapeau Bougane Gueye Dany ñu ngi koy waajal loolu bés la de. ah bu rëy xajal arène nationale. est ce que xam nga ne bés boobu euh, Ndakaaru gépp dinañ génn mobiliser wu ñëw te bés boobu defe naa ne war ngeen cee wane culture wara ci seen bopp tamit. waaw xam nga c'est le man dafa am foofu na dama fa war a dem kon dama jàpp ne caat mi. dama si war a jaar rek yegg fenn na fi bon bu dee côté mobilisation dinaa ko indi ba mu doy bu dee animation naa ko indi ba mu doy bu arbitre soufflé ma yëngal safal yàlla suñu borom jox ma ndam si kawam barke borom Ndiassane. Euh, mais tey naka ngeen andee capitaine. waaw xam nga capitaine gëj na fi. te écurie Yoff la woon ak écurie mbooloo ñu boole écurie bi mooy suñu première sortie conseillé nañ ko lu ñu ko war a conseillé ñu ngi ànd ak moom di ko gunge ñaanal ko sunu borom jox ko ndam si adversaire am bi muy bëreel. dama dégg seen adversaire nee na mag ngeen day ñëw defaral leen rek dem yoonam. waaw man ñun tamit wax nañ ko na taxaw déglu ko rek lu mu indi mu fekk ko si. waaw incha allah. Ah, ci yokkoog merci beaucoup. mooy noonu mbokk yi. ngi noonu. ak capitaine Dina. Cheikh am na lu muy diw pooj bi. <laughs> capitaine Dina ngi noonu. capitaine Dina moo ngi wër samp ay sondal. waaye seex noonu jël béjjén bi di ko bomb ci tànk yi gis ngeen làmba ngi nii waaye seex super jamono mbokk yi cosaan la àndi tey boo ma xoolee lee ngembam lii xam na cosaan la àndi mbokk yi capitaine dina sonne li muy teg boo yaa ngi koy dindi di sànni seex super jamono am na lu muy jël di ko raay ci yaram bi béjjén la mbokk yi tey làmb làmb lépp aar la. lépp lépp lépp ala tase bi Cheikh Super Diamono capitaine dina capitaine dina wa ngi noonu Cheikh Super Diamono dafa mel ni dafa niin ñoo ngi koy fomp Cheikh Super Diamono capitaine Dina capitaine Dina a ngi noonu daa mel ni dafa xaw a niin Cheikh Super Diamono pare na capitaine Dina a ngi noonu di dem ci diggi géew bi laa mu gëm naa du yàgg. buñ ko defee ni ko xale yi defee léegi ñu jóge fi dem ñibbi. Cheikh Super Diamono capitaine dina première journée sëñ Modou Niang abit baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ làmb ngi nii Cheikh Super Diamono capitaine dina abit baa ngi laaj ay jugeem laaj na capitaine dina laaj na Cheikh Cheikh Cheikh Super Diamono Habib bi sifflé na Cheikh Super Diamono capitaine Tina Cheikh Super Diamono à gauche capitaine Tina à droite Cheikh Super Diamono ñaan na ci kanam gi ne gars yi jóg leen waat na moom Cheikh Super Diamono capitaine Tina na ngi ne tekk di ko déglu cey làmb làmb a ngi noonu Cheikh Super Diamono capitaine Dina capitaine Dina na ngi ne tekk moo ngem moo ngem lu ñuul li moom capitaine Dina ànd ak waa yoof gépp waa yoof gépp ngi noonu day leetoo ba mu neex mu dagg leetoo bi dellu ginnaaw taxaw dellu si waat Cheikh Super Diamono teg pied gauche capitaine Dina teg pied gauche waaw xeex bi day xaw a compliqué tuuti ndax fausse garde la Cheikh Super Diamono day leetoo mu neex ko mu dagg leetoo bi waaye capitaine dina accéléré na ko capitaine dina dogoon na gauche léegi waaye dalul capitaine dina Cheikh Super Diamono cey làmb làmb ngi noonu xaarib anta maa ngi bëggee téléspectateur wasaare yëpp Cheikh Super Diamono ngi dóor capitaine dinaa jël na tànk ba Cheikh eh Cheikh dugg na léegi eh signalé na moom Cheikh Super Diamono ndànk capitaine dinaa ndànk daan na ko capitaine dina capitaine dina daan na Cheikh Super Diamono daan na dinaa daan na Cheikh Super Diamono dafa signalé mu accéléré daal ci kawam combat ba daanu nga Cheikh Super Diamono daanu nga. Cheikh Super Diamono daanu nga Cheikh daanu nga moom Cheikh comprendreul ba léegi dafa signalé te arbitre bi siflewul capitaine dinaa ngi noonu bu leen ñu yàqal suñu 16 tey daa mel ni lii moo fi xew kuñ fi daan sa mbër ngeen dama suñu 16 ñun lii am bu ko yàqal.

Mais non, non, non. Ouais, laissez jëf yi mu. mënoo fi wax wax ba kenn kam la jugal nga dem sa kër boo dégg. jugal Seex. jugal waay Seex. jugal waay. mu signalé arbitre pour loolu mais loolu euh, bon loolu du règlement il avant ñuy bëre arbitre dinañu xool ba pare comme bàyyi nañ ko mu bëre si loolu rek ça veut dire que c'est réglementaire quoi. waaw di ñaanal sa poulet dafa juum. waaw mais xale la waaw xale la dafa juum mais dañuy dem rek liggéeyaat xam nga waaw xam ni lii la yàlla dogal quoi. loolu ngeen président baa ngi noonu. Oh, mais am na loo yónnee du ngeen. lan la ñun ñoo la mën a bàyyi dañ laa bàyyi doo jóg leen ñibbi. dem pale doo jig ñibbi kan dem waa kan dem Hey, hey.